du mës a yàqu ci say loxo yéen ñii fi taxaw yéen rek yéen a xam Aminata képp ku wax ne xam na soxna Aminata ku dul yéen na la wóor ne ni am na lu mu mànkal ndax kenn ku nekk ci yéen am na lu mu jëflanteeg yow la nga xam ne ni bokkul lu mu jëflanteeg keneen ka kon nag yéen de yéen a demle waaye nag. waaye yéen tamit yéenay muñ. nit nag suñ ko waxee muñal. dafa fekk ni lu metti rek la ñu naan muñal. waaye yàlla lépp lu mu def. dafay fekk ni loola gën. lii na ngeen jàpp ni gënal la. góorgóorlu leen. na takk seen digg. maa ngi seen gannaaw. E nii am na te nekke seen biir. noonu laa nekkee ci yéen kon nag bu leen ragal ko ñaanal rek fee mu nekk moo ko gën a fii ci biir àjjana kon nag yéen tamit ñaayeen ko ñaanal la ngeen mën képp kenn ku nekk ci yéen bu jëlee kurusam mu jaamu yàlla. nan ci boole soppeem bi am na de seen soppe la woon yéen ñëpp moo leen dugal ci kër gi te nag ci kër gi ngeen bokk waaye nag lépp tamit am na sabab lépp lu amul sabab yàlla de soxlawul lool su ñëwul woon mu mu mu nekk soxnam mu andi ko maa ngi ànd ak ñii. ndaxte nak ñun ñëpp suñuy soxna kese ñoo fi nekk waaye nak man demaa leen booleeg moom te dem na ba nga xam ni moom de moo nekkaat seen sëriñ bëgg ngeen ko ci bëggal ba nga xam ni bëgg na leen bëggal boo xam ni lool moom da ngeen di daje ji lenn fenn rek mooy ci kanam Cheikh.